tali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gii di réew mi quotidien mu xëy nag ci tey bu njaay mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon ak cadastre te ñu àtte woon ko ci cré yi tuumaaloon ko ne moom tey bu njaay dafa am teraanga joo xamante ni teraanga ju léwul la ñu tojoon ko nag 2015 ci lu toll si juróomi ati kaso amande ko lu toll si ñaar ci ay milliards moom akuk njabootam ñu jàpp ne teraanga ji nga xam ne amee nañ ko maanaam du teraanga ju lewa moom tey bu njaay nag ne àttekat bii di Henri Grégoire Diop ni mu ko àttee daal teguwul ci yoon taxoon mu daal di clamé ji fi nga xam ne mooy cour suprême yéen a kaay gii di réew mi quotidien ak la turbine mu ñu xamal lan ñu ëttu attakaay bu mag boobu nag ni ki démb la ci yéey daal di yàbbi waaye nag dafa dëggal mbooleem li nga xam ne Henri Grégoire Diop daad na koy wax journal bii de L'As ak Vox Populi mu ñu xamal lan ñu dëgg gi kay mooy tey bu njaay jamono ji moom daal dinay ñàkk yéen a kaay groupe promo consulting ñu fekk fa Assane Samb moom nag mu xëy daal di bind wax ci li nga xam ne maanaam mooy kër yi ak yeesalaat gi nga xamante ni maanaam doon nañu ko wax ba léegi ni daal puusul paasul demul cëng dikkul mbay laara dara amul ca yéen kaay gii di Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu yaakaar daal dinay tas ci ci wàllum njàng meek ndax kuréel gi nga xamante ni mooy G7 nekk nag kuréel gi ëmb juróom-ñaari syndicat yi nga xam ne ñoo ëpp doole ñoom na ginnaaw bi ñu fësalee seen naqar ministre Mariama Sarr ñu dénk ko wàllum fonction publique da leen a woolu woon ni ki démb ci ji la ñu doon waxtaan waaye nag seen waxtaan waa jurul dara ndax nag li nga xamante ni moom la Mariama Sarr bëggoona ñu dakkal seen gerew yi jàngalekat yi dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa journal bi mu ñu xamal lan ñu àllarba ji nga xamante ni moom la ñu dëgmal ñoom sax dinañu daal di amal ab débrayage bu ñu fa jógee nag grève totale la ñuy daal di amal ca alxamis ja bu ñu fa jógee nag amal ab marche journal bi xëy di wax ne njàng meek njàngale mi jamono ji nag dafa daal di tagga témbe journal bi di réew mi quotidien ak laas mu xëy ci réunion nga xam ne ministre des finances ak yi nekk ci banque centrale des de l'Afrique de l'Ouest ñoo ko ci alxames ci ngir nag waxtaane lépp loo xamante ni jëm na ci mbirum kooma waaye nag li nga xamante ni mooy éco bii ñu wax ne moo fi remplacé franc CFA waaye nag journal bi nee na ak safaanoo daat da cay am maanaam ak ñàkk déggoo ndax am na juróom benn réew yoo xamante ni ñoom d'accorduñ sa benn yoon yéen a kaay gii la turbine ñu fekk fa Ousmane Sonko moom nag daat nay ŋàññi li nga xam ne mooy dialogue national bi nee na ab gâteau la boo xamante ni dañu ko tekk ay nit séq ko di ko daal di séddoo enquête yéen a ba tey ci biir dialogue national bi mu ñu xamal naan ñu daal di nay nag tasaare salfaañoo li nga xamante ni maanaam mooy ku jégi Momar Jong di ab journaliste ñu daal di koy fekk ci biir yéenekaay gi la moo xam le nee na dialogue national bi dafa commencé rek daal di lajj ndax ab dialogue national ci biir réewum Sénégal te PDS bokku sa parti Pastef bokku sa ak ñeneen ñoo xamante ni ay leader lañ loole nag mën nañ koo tudde leneen ba mu des ab dialogue enquête yéenekaay mu ñu xamal lan ñu waxtaan wi nga xamante ni Famara Ibrahima Sagna moo ko jiite ñi nga xam ne ñooy waa PDS ak waa Pastef ak waa réew mi dañu ko daal di gedd journal bi mu ñu xamal lan ñu loolu Moustapha Cissé Lo ak njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag daat nañuy mën a jaaroo ab taala ginnaaw nag xiiroog ngaayoo gi doxoon seen diggante fexe nañ ba jubóoli leen Macky Sall daal di kay dalal sa palais ba ngir nag ñu daal di waxtaan moo ne day am nay jege ñaale Macky Sall yoo xam ne dañoo bëggoon mu dàq Moustapha Cissé Lo ak Moustapha Diakhaté waaye nag njiitu réew mi dafa mel ni jamono ji jàmm moo ko gën a yittee la ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal lan ñu duwaanub Sénégal ñoom nag daat nañuy def liggéey bu am solo ndax nag ci ni dugal nañ ko koppar toll na ci 804 milliards collectif ñoo lànk ñoo bañ ci biir yéen kaay gii di source a ak les échos ak réew mi quotidien mu ñu xamal ñu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier fas na nañoo amal nag ab doxum ñaxtu ca diwaanu rifis ba tey ci biir yéen kaay gi collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag nee na ñu dàq ñu benn yoon toog ak Macky Sall waaye nag boobaa daal dafay fekk mu daal di libéré ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna yéen kaay gi de las mu ñu xamal lan ñu collectif ñoo lànk ñoo bañ bi nga xamante ni daal wër nañ seeti ñi nga xamante ni ni ñoo yëngatu ci wàllum politique ngir nag ñu ñëw jàppale leen seen xeex boobu gis nañ ne ñooñu dañu leen a dumóoyu ci manifestation bi ñu mujj amal moo tax jamono ji collectif bi wan na ginnaaw leader politique yi fas yéene dem nag waxtaane ji ak kilifa diine yi yéen kaay gii di libération mu ñu xamal la ñu yéen a ngi fàttaliku drogue bu bari bi nga xamante ni jàppoon nañ ko ci waaxi ndakaaru yi drogue boo xamante ni bëri woon na ba jéggi dayoo tegoon nañ si loxo lu toll si ñeent ci ay nit waaye nag ñooñee mujj a libéré vox boo moytuwulee dina am ci réew mi ndax njëg yu baree baree bari séentu nañ mu daal di waa waaye UNACOIS ñoo xam xamle maanaam commerçant yi la waral nag nee nañu fukk ak ñaar pourcentage yi nga xamante ni yokk nañ ko ci ay taxe importation yi lu amaat rek loolu daal moo ko daal di waral journal bi daal di xëy dikk nag ci benn soxna boo xamante ni ma ngi wuyoo si turu Kumba Kan moom nag dañu ko daal di kidnappé ci diwaanu Kër Mbay Fall ne mes na menteñ ak moom journal bi di Libération nee na ñi nga xamante ni daal ñooy sàmba yooyu bi ñu ko jàppee ay waxtu dañu si teg daa di woo borom këram paas ko ndaw si ndaw si daa di wax ak borom këram na ko gën a la sàmm xale yi yéen kaay gii sunu laa mu ñu fekk fa Tafa Gueye la mu xamle nag nee na combat bi nga xamante ni moo dox diggante Modou Lo ak Ama Balde combat boobu nag dañu ko war a teg si suufa Modou Lo ak Ama Balde nañu bàyyi nag yàq seen xaalis jamono ji ndax na leer ne combat boobu du am tant que Luc Nicolaï ma ngi ci kaso bi